إنني أثني على خير منأمي ولا أستكي للخلق من فخد أن أمي ألا إنني أثني على خير منأمي ألا إنني أثني على خير منحمي ولا أستكي للخلق من أن أمي ألا إنني أثني غير منهم ولا أستكي للخلق من فقد أنهم فمن ذلني في قربتي ذات سللين إلى خير مخن وازن فهو قد أمي لو أتكيل فيه وفقري وقربتي وأرجو رجويها إلى الخير منحني سكوت له أكسي فأسكى وكان لي بما فاق سني فهو أكرم مكرمي ما جانبي من قرأ أم كفر أم بئي فأنعم أماني تاردا كل مجرمي ما جعل بي من خيرهم كفرهم بي فانم اماني تاردا كل مجرمي لو شكر مني راجيا من ام بي بلا كلفة مني وقد على مخرمي لئن قرني لئن قرني لئن قرني من قره سن آسدا فما قرني من قارني تكرمي فمن يلقني عن في البر ساقلا فقد جاءني في البر جود المكرم ومن ساءه كوني لمولاي لمولاي عابدا وكوني قديما للسفي المقدم ومن ساءه كوني لمولاي عابدا وكوني قديما للسفي المقدم فإني له في البر والبار عابد خديم لمنج من دواعي تندم ومن صدأني فالمواهب أقبلت من الواسي المغني أفيس المقدم ومن يلقني في البر روما لقربتي فلي من إلهي عوض في كل أيلمي لربي تجائي في أدوري وخيبتي وبالمصطفى أسكو له نهم سلمي علي صلاة الله ثم سلامه بعد له مح كل مسلمين إلهي على خير البرايا محمد أدم سرمدا أسكى صلاة وسلمي مع الآل والأصحاب طرا وردني سريحا إلى توبة ووطني وعلمي إلهي علي دار كوني خديما وكوني خديما الآي آه، علم فهمي إلهي من الوعاب أبقي تبأرا وكسم إلهاما فلنسي بألمي تواجد للفتاة أبي فتو وأرجو فيولا من أول فيل ينهمي Euh, ci li nga xamante ne mooy déclaration bi porte parole wax parce que li ñuy wax euh, li bu ñu ko toppee rek topp nañu li nga xamante ne moom la sëñ bi bëgg moom la yàlla bëgg moom la yonent bëgg moom la sëñ bi bëgg kon nag taalibe bu nekk da nga war a topp ndigal topp ndigal mooy fexe bi nga xamante ne lépp lu baax nga ne ca te lépp lu bon it nga di ko moytu te bu ñu wootee jàmm jàmm defe naa ne mooy lépp ndax bu weesoo politique bi ñoo bokk Sénégal ñoo Touba ñoo bokk suñu Touba kon nag woote boobu jàpp naa ni ñun ñi nga xam ne ñoo faral ñoo nekk ci euh, mouvance présidentielle tàllal nañu loxo ñëpp woote jàmm la sëñ bi bëgg kon nag fekk si ne ñu nekk ci jàmm boobu te giñ ko yokk donc di santit wax dëgg yàlla euh, ci déclaration bi ndax amaana bëri na lu ñu doon def si Touba te fa sa te fa xaw communication bi xaw a des mais tey bi nga xamante ne porte parole jël na kàddu wax li nga xam ne moom la fa président def ak gouvernement ci ay ay infrastructure lépp pour fexe ba Touba mën a nekk ci kanam kon loolu jàpp naa ne ñun en tant que disciple de Serigne Touba am nañ ci mbégte ndax amuñu lu dul Touba kon nag loolu bu ko gouvernement di def ci sunu dëkk dañ koy sant yàlla di ko sant président ak gouvernement. mu mel ni pare ngeen yéen ndax dialogue boobu xëy na tey am ngeen fi responsabilité wu. waaw dialogue boobu moom ku xool. xam ne ne président de la république dafa yàgg a woote dialogue pour ñu ànd liggéey ndax mbir dina toll réew dina toll foo xam ne dañuy war a bàyyi politique dañu war a xool li nga xam ne mooy njëriñu askan bi président yàgg na woo képp kuy sénégalais mu ñëw boole bokk ci li nga xam ne mooy tabax Sénégal. konat loola nag ci diggante topp yàlla. bëgg Rasulullah la ko yàlla maye ak pas-pas bu wér boo xam ne bii gën ba mu demee def na juróom-ñaari at yu tegal waaye dellu si ne itam ci jàmm waaye ba mu dellu seet li mën taalibe yi jaamu leen yàlla bëgg leen Rasulullah liggéey leen jàng leen yaru leen am leen kilifa loolu nag suñ ci eggee rek da ngay daal di jàpp ne li nga gis mu tas addina bi léegi ñu naan dañoo amatul ay valeur ak amuñ ay référence boo ñëwee fii xam ne valeur yaa ngi des ba léegi ñu bëggoon a ngi def lu baax ñu bañoon lu bon bàyyi nañ bon ñi nga xam ne ñii gën dañoo war jàng tey ngax jàng moom a takk woon nañ di jàngiwaat te boo fi dégloo xale si fi jàng léegi ñu ne juróom-ñeenti at la am ñu ne mokkal na alxuraan nga dégg ko ni mu jàngee nga xam ne am na ñu bàyyi xel seen borom am ñu bàyyi xel alxuraan am ñu bàyyi xel charia am na ñu bàyyi xel sunna te taxul nag ñu sàggane liggéey lim fi fàttali it liggéey leen te bañ a yàq wut leen kilifa te ngeen yaru te loolu nag moom lañ fi waxtaane itam biig ndax li maam sëñ Tuubaa doon digle di jàng leen te yaru loolu rasulullaa ko digle woon moo ne woon jàngal leen nit ñi te yar leen su ngeen jàngalee ni ñi te yaru leen leen yéen a ngi waajal ay ay ay bay ay bandi su ngeen leen yaree jàngalu jàngalul leen yéen a ngi waajal ay dof kon nag nañ fexe ba loolu nga xam ne li gën bàyyi woon na ko fi mm. wa tabaarakallaahu sëñ Seydi Moxtaar doxal ko doxalin wu rafet mm. ndax wane na ne ñëpp benn lañu te ñun ñëpp kat dañoo war a àndandoo ci buumu lislaam bi alxuraan ko waxoon bu yàgg tasimu bi abdillahi jamiin wala tafarraqu yemul ca loola nag waaye mu ci yàlla bu baax di junni si yeneen bi sallallahu alayhi wax jërëjëf sëñ Touba sant nañu yàlla lim nu may ñu teewaat nañ yàlla nañu ko yàlla defal déwén te mu bàyyi fi sëñ Cheikh Sidi Maxtaar te yokk wéram yokk ay kattanam di wax ni man sama teewaay fii mooy teewaay yu mbégte am naa te lool teew fi am naa fierté bu rëy ni man sëñ Tuubaa laa gëm sëñ Tuubaa laa bëgg sëñ Tuubaa laa doy ndax ku nekk si jataay bi rek daa xam ni sëñ Tuubaa yàlla defal na ko ay xéewal yoo xam ni addina bi yëpp mën nañ si jëriñoo lool la sëñ Bass Wane ñàngale sëñ Tuubaa li noo wax ni njàngale sëñ tubaab àddina bi yëpp mën nañ ko jariñoo moo feeñ moom la ñu wax les enseignements de sëñ Tuba sont universels àddina bi yëpp mën nañ ko jëriñoo tomb boo laaj rek ci nan nan ngay kennale sa borom nan ngay gëmee sa borom nan waaye ñun ñëpp li ñu bëgg yi tamit mooy euh, Touba TV lii nga xam ne lii nga xam ne mooy suñu réew euh, dox ci dox ci dox kanam waaye li ñu bëgg rek mooy woote waxtaan boobu na nekk lu nga xam ne lu sincère la na nekk lu nga xam ne lu dëggu euh, na nekk lu nga xam ne yi tamit ñu koy wootee bu ñu ko wootee rek pour politique politicienne waaye na nekk lu nga xam ne ñi ci bokk ci acteur politique yëpp daañ mën a toog sumbandoo waxtaan waxtaan ci mbirum fichier électoral bi euh, waxtaan ci mbirum euh, euh, élection yi nañ ko war a organiser parce que ñëpp d'accord nañu ne élection yi ni ñu ko organiser bi ñu passé gis nañ li ci li ci li ci sikk gis nañ ne jaarul ci jaarul ci yoon ensuite ñu waxtaan ci mbirum financement parti politique yi waxtaan tamit ci mbirum mode de scrutin bi parce que li ñuy wax naan raw gàdd wala leneen leneen nekk na lu nga xam ne tey jàpp nañ ne romb na mais waxtaan yi tamit dafay intéressé boor yëpp waaye doone man euh, su may waxtaan rek lii laay waxtaan mu nekk lu nga xam ne en tout ñun amuñ ci benn problème ñun waa Yeesal bu ñu wootee ndaje daañu dem teew euh, déglu li ñuy wax joxe suñu xalaat buñ mënee d'accord ñu d'accord buñ mënul d'accord yi tamit Euh, kenn ku nekk sa magum mbokk nga. soo gisee loolu doy da ko xam soo gisee loolu doy tamit da nga ko xam. jërëjëf euh, président waaw sëñ bi moom waxtu wu nekk dañ koy déglu. bu ñuy dellu dañ koy déglu bu ñu ko dégloo nag euh, ñun ay taalibe la taalibe bi nga xamee ne taalibe bi nga xamee ne moom la ñu dañuy jëfoo ndigal maintenant su fekkee ne nag ndigal loolu ñu ñu ñu ñu ñu jox dañoo sëriñ bi dafa war a wëlbatiku di évaluer ndigal li seet kan moo ko jëfe ak kan moo ko jëfewul parce que su dee ànd mais kenn ku nekk dafa xam ne ànd bi dépendrul ci ñun ñun dépendrul ci ñun dafa am koo xam ni moo yore réew mi moom moom moo war a créer yi nga xam ne moom lay wootee sumbo suñu woté woté nawlé ñu wuy ji ko en tant que nawlé jëfo suñu ndigalu sëri jëmono ji nga xamné ne nga assemblé nga xamné ne eh, dañuy jënd eh, malaay la yo khalifa sall yeen lan ngeen jox en tant que nañ wax ci magal <laughs> di ñaanal waa ci Seydi malik di ñaanal ñepp di ñaan yalla may ñu wër ak wërlé di ñaanal ñi nga xamné ne ñoo fi jóge te dem barsa ak ñi leen jitt ñëpp suñu borom yërëm leen di wax ne kontaan nañ seen journaliste yi ndax lu nit mëna dégg yeen nako jotti ande ngeen ak yar ànd ak tal ne si naaj wi yal na suñu borom fay leen dafa leen neemal mawlaa wa neemal nasi yàlla bu ñu yàqu yàlla bu ñu yàqule yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu El Hadj Cheikh Ahmed Tidiane Niane dëkk Tëngéej di conseiller municipal di leen di ziare bu baax di umma islamique wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin ñi nga xam ne ñooy étranger

kon nag barab bi moom moo xaw a xat moom moo tax mais délégation yi. waaw suñu Basiru Cheikh Amadou Bachir moom sama Lamine Baara moom la yóbbu